internet tv com tey ñoo ngi Thiès loo ak Laye Gothé mu war a bëre jeudi le 26 ñu ñëwoon seet si ko laaj ko fan la toll ci ay waajtaayam laaj ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum ñu ngi lay fay ginnaaw ban sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñuy ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ ab sàkkoor mu sëñ Cheikh Fall Ngunda di ñaanal sëñ Muntaxa kay gi yàlla na yàgg ci kawam di ñaanal sëñ Cheikh jëmb tamit mu yàgg fi loolu te wér. da ngaa war a bëre kan nga a a bëre le man ak Tonnerre numéro 2 stade Iba Mar Diop drapeau Mbaye John wéy. avant nga bëri ak moom foog naa bëri woon nga ren ci saison benn komba waaw saison bi ren bëri naa ci benn combat man ak mbay Gouy Gui waaw le 4 février ba lay passé yàlla may man dam ci kawam ma war a bëri ak Tonnerre numéro 2 di ñaan tamit yàlla may dam ci kawam. palmarès bi nan la demee. waaw sama palmarès am na neuf combats. waaw sept victoires. waaw deux défaites benn match nul. Mhm. nga war a bëri ak Tonnerre numéro 2 xam waaw xam naa ko xam naa ko nii nii nii rek. oui oui xam naa ko xamul làmb rek ndax toog naa tamit stade Iba Mar jour combat ambulance ak armée moom moo doon bëri spécial bi moog Petit Niang. oui waaw seetaan naa ko waaw seetaan naa ko bu baax waaw. loo xam ci moom waaw li xam ci moom nag bari na quoi waaw ndax toog naa stade seetaan ko muy bëri waaw seetaan naa ko jàkkaarloo jàkkaarloog nag moom face to face muy bëre stade ba Mar Diop waaw kon ñàkkul ni am na lu ma xam ci moom quoi oui mais loolu sax concerné wu ay lu ma xam ci moom ak lu ma xamul ci moom sax concerné wu ma. ah di nga bëre mu bëri te doo xam ci moom dara loolu est-ce que na. non les jours yi bu soobee suñ borom buñ ci àggee moom lim am du feeñ loolu moom man maa la ko wax lim am du feeñ oui lim am du feeñ. a ah, gars yi nee nañ Pank ngay bëreel te ku mën a bëreel. waaw loolu moom dëgg la moom waada la quoi. ndax bëreeg waada ak ku mën a bëre man damay sawar pour bëreeg moom ndax sooy bëreeg ku mën a bëre boo koy daan jël bu rëy nga koy daan waaw. loolu nga ma ci mbay guy gi ma laaj la nga ne ma yaa ko dàq bëre est-ce que da ngay dëggal kii tamit yaa ko dàq bëre. waaw maa ko dàq bëre tonnerre numéro 2 maa ko dàq bëre maa ko dàq bëre fuuf te loolu sax du du jarul ñu koy wax mais les jours yi comme que moom waada la les jours yi nit ñaa ngi stade taxaw di ñu seetaan man ak moom les jours yi yow sax di xam kan moo dàq bëre man moom naa xam ku dàq bëre te jour boobu Babacar moo koy reporté te kuñ daan say mbokk dinañ la mere. waaw waaw waaw waaw moom xanaa ay mbokkam moom mere ko mais man samay mbokk duñ ma mere ndax le jours yi bu soobee suñ borom li ma war a def lépp def naa ko ba pare xaar jours yi rek di ñaan yàlla yàlla may man ndam lu sedd guyu ta gaaw waaw. ko tax xeex ba tamit waajal nga ci foog na. waaw ñun waaj nañ lépp ndax kuy dem guerre da ngay waaj lépp wuñ dara waaj nañ mystiquement moralement mentalement physiquement waaw tactiquement. contact yeeg lépp waaw waaj nañ ko yooyu bàyyiwuñ dara bàyyiwuñ dara billaahi jour boobu dafa bari ay combat spécial est-ce que ñaar mën ngeen a dëggal ni seen combat moo ciy dàq parce que nee nañ mooy combat technicien waaw man sama combat moom dina neex moom ndax li ma war a def moom bu soobee suñ borom bu yàlla may wér gi ak tan gi may ko ko moom man li ma war a def dinaa ko def bu soobee suñ borom waaw dinaa ko def ndax bëre salaamaaleykum mbokk yéen ñu suivre ci seen sit internet lutte tv point com ku ngeen jàkkaarlool mooy tonnerre numéro 2 mu war a bëri jeudi moom ak Laye goote tey ñu ñëw laaj ko fan la toll ci ay waajtaayam waa lutte tv point com tonnerre ñoo ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay maa ngi leen di fay maa ngi leen di nuyu ku ci ne ak santam di sant yàlla bu baax na ju julli ci yonent bi di sant suma ñaari waajur di ñaanal képp ku may jàppale rek waa tey boo ñu fekkee fii tey xam nga ne macha liggéey nañ li ñu war a liggéey bi nga agsee ni sax daa fekk ñu door suñ science ba pare mais teew dañu bàyyi lépp lu ñuy def ñëwaat di sant suma gaa yi ma dendool nag ku ci mel ni ma Samba ñaa waaw aw ma gis naa taxawaayam ci man Adama Ndiaye kii mooy dofu tonnerre nay leer waaw sama mag sama xarit moo nekk sama ginnaaw Balla Dia ak Rijal. kañ ngay bëre ak kan nga war a bëre. Euh, maa ngi war a bëre le 26 maa ngi bëre benn bër bu ñuy wax laay goote laay goote lañ koy wax foog naa bu ma non xam naa ci moom tuuti rek. wax li nga xam si moom. waaw champion la champion la champion la yaakaar naa fi mu toll nii euh, prouvé na daal ba agsi fi mu war a agsi pour man waaw du ma ko xeebal ak champion parce que man du ma bëre ak cuune te moom dégg naa ñu ne dafa mën a bëre macha allah. sa palmarès nu mu demee. sama palmarès nag waaw bu ma juumul maa ngi palmarès bu rafet bu rafet macha allah ndax ñi ma ci daan ñëpp. Euh, yaakaar naa ne moom sax bëreegu bëre bëreegu loolu quoi li ma bëre moom bëreegu ko waaw waaw maa ngi ci 14 benn défaite waaw euh, gàkku de moo ma daan waaw. 13 waaw moo ma daan. Mhm. Laye Gora su ma la laajoon fooram lan nga may wax. non fooram kii ma ko moom xooluma xooluma fooram man non yaakaaruma loolu quoi comme nit am na benn foor bu mu war a a baare ci moom. non gisuma loolu gisuma loolu gisaguma ko ci mbër quoi mbër bu ma téye ma ne fi lii moo lii la ma ne ba tax mënu maa def li ma bëgg def non gisaguma ko. point faible am ba tey it xooluma lan mooy point faible waaw li ma bëgg a def rek man moo ma ñor quoi mais xooluma ci moom point fort xooluma ci moom point faible xooluma ci moom leen wóor na man loolu laa gëm waaw du ma bëreeg mbër ba dem di xool lan la ma nekk lan lay teleeg fan lay yàqoo mais le jour si bu li ma bëgg a def dama koy def incha allah. fekk naa ko nag mu Modou Anta ñu ñuy rey seen bopp ci salle bi nee ko nag yow tafaatin ngay ngay ngay àndal waaye Modou Anta mi mu kontaagal tamit moom am na doole de mbaa tamit ñu ngi ànd kontaagal ñu oh, waaw loolu Modou Anta bu defee loolu dafa dellu mbatu ca Ndaala ndax Modou Anta bu laay goote nekk rakam nekk ci combat contacté wu ko defut la ko war maa ngi koy remercier ci loolu loolu mu def lu ko war mais man ci sama ginnaaw ñu ci nekk Ndakaaru ay xale ñoo fa nekk. en passage di leen ñaanal ñas mi am combat anti yàlla na leen yàlla may ndam ñooñu rek dañoo doy ci contact yaa ngi dégg waxuma la nag bawal gépp topp sama ginnaaw te bu keroogee ngay comprendre ne bawal gépp topp nañ sama ginnaaw waaw barke sëñ Tuubaa côté mobilisation bi moom nee na boo leen teelu da dugg moom stade ba kenn dafa xaj parce que moo ko nar a feesal non loolu moom bi mu la ko waxee sax yow war nga koo tontul sa bopp ndax Modou warta euh, laay warta mën a jógee Thiès di ma fekk si Dakar ma fi mbooloo kon bu yoboon Tonnerre xoolaat boppam Tonnerre mooy mbooloo yoole bi laa lay tegal nii yoole man Tonnerre man toog maa ko gën maa gën yoole bi yoole je me bien jour bi ñuy gën a yoole bi di ko këree abu njaasee ko bëggoon a yóbbu lamsaar ponkol mii ne ko eh bala ne ko bàyyi ko ñun yoole bi ñooy borom waaw jël leen seen tarkindaa rek man yoole laay doxal yoole bi man maay numéro 10 yoole bi laay yoole bi laa lay tegal nii bul changé dara nag sa stratégie ni nga daan bëree waaw damay xeex damay non damay xeex man damay xeex dama bëgg ñu xeex dama bëgg mu taxaw ñu xeex. xeex ak laa est-ce que wóor na njool la de. lool laa bëgg dama bëgg a wane sama bopp dama bëgg nga taxaw ñu xeex nga dégal sa bopp. champion nga macha allah da nga mën a bëri taxawal ñu xeex bu ñu xeexee ba doyal doog a bëri nag loolu laa bëgg dëggalal dégg waaw. benn bawal bawal nag la njëkk a bëree saison bi daan ko muy muy mbay guy gi ci seen biir la duggaat nag. waaw loolu euh, kiiwuma ci defuma ci attention bu baax mbay mbay sama nit la mbay sama nit la mais kii ngay waxal mooy tonnerre tonnerre nga toogal nii di wax ak moom yaa ngi dégg waaw di ñaanal mbay tamit euh, defet yem foofu waaw mbay xam na mbay laay goote bu ñëwee rek daan noonu mbay xam na mbay xam na du ma tilimal ko amee yàlla baax na laay parel parel laa la wax dafay du yomb de waaw taxawal ñu xeex man loolu laa bëgg waxaat naa la ko taxawal ñu xeex dama bëgg ñu xeex danga nga mën a bëre dama mën a bëre ah bàyyil bëre bi na la ñu xeex cinq minutes doog a ñëw bëre loolu laa bëgg. la wax promoteur bi ak waa Thiès. waaw Assane Ndiaye ma koy sant di ko gërëm quoi. oui ndax mu noon na tamit jëm jëli beneen mbër ndax mbër yi dañoo bari wéy bi yàlla defee nag mu xelam nekk si moom ba mu taxawal sama combat duma def lu dul di ko sant di ko gërëm waaw di ñaanal estafam bépp jàmm bala jour bii nii mu réussir ci kattanu yàlla ak yërmande Mohamed waaw du ma def nag lu dul di sant waaw samay entraîneur ku ci mel ni Maam Saa maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm Ndiaye Jaara ah Pape Diop Zal Mbaye suñ président écrit tamit maa ngi koy sant bu baax di sant Ousseynou mi tamit mayor musculation ak Daouda Dev ñu gën koo xam ci Dev maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm wéy. waaw di waa Colobane gi yëpp waaw ñi nga xam ne ñooy jàppale Tonnerre waaw di ci jiital suma yaay mère Dieye awma ma fayam suma waa kër Maguette Aïda Diallo Fatimori di woo nag euh, maire kolobaan mu jàpp ci ndax ñun kolobaan gis nañ ne yaa ngi yàgg nañ fi trop mais jàppale bi des na quoi waaw di profité nag di sant ma ma Madiba Ndiaye Madiba Diop Madiba Ndiaye Madiba Ndiaye aw ma fayam précis gis naa taxawaay bi mais yokk ko bu baax waaw tey mooy loolu li may sant du bëri ñii laay sant sama gars yi nga xam ne ñoom laa àndal yaa ma dégg ñii laay sant ndax maa ñoom ñoo yem rek kenn tanewul sa morom mais lu ñu am ñu ngi koy bokk di ko sedoo di sant nag euh, sama grand Billy Billy waaw balu fagi jaay yëpp maa ngi leen di sant di leen woow jaaykati portable yi góolu maan yi jaaykatu jiin yi waa lemma ak waa mbaar mi di woo ñëpp Assane Ndiaye non damay woote pare doo ko wax ak Ndiaye di woo gars yi jaaykatu dal yëpp xam ma ci marché bi lañ nekk waaw di woo jaaykati dal yi daay fag jaay ñoom bay ñang dan yaba lay bébé suma gars yëpp yeneen gars mooy loolu ñoom góor a sàmb suma gars yëpp bàyyi jiili gajaga di woo gaa yëpp nag di leen xamal ne combat bi bëgg naa ngeen jàpp ci ndax waaj dama bëgg balaa jógee balaa jógee Thiès fekk ma feesal stade bi Touba Toul Ker Laman Ker Caaf Ajo Moussa Yeri réew Maawo Touba Fale Ker Caaf di woo ñëpp daal